Heavy Mess.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 ca dëgg-dëgg jeggi na dayoo sawaay nee ñu Toubacouta la jóge woon fekk boobu ci ab moto la nekkoon dal di ci chargé ay bant yoo xam ne daf ko fa jëlee woon ngir bëgg koo jaay naka noonu bi mu ñëwee ba booru Kenya nekk ci entrée Ziguinchor bi la dajeek ak eaux boo xam ne dafa siwulu mu dal di koy interpellé bi mu ko interpellé sawaay lank ba tëdd ci naaj bi dal di continuer tawal motoom ci la ko eaux et bi toppee di ko dàq

di ko dàq mënu ko jot bu eaux bi demee nag ba xam ne pexe ma ngi waaj a jeex ci la ko dal di yuuxu sàccee bi mu ko yuuxoo sàccee yi fekk am na ay dawalkatu jakarta yu fa nekkoon dal di apprenti maçon bi jaawale ko ak sàcc ñii yori peel gourdin ak i kub-kub ñu tiim ko dóor ko ba sa waay tëdd bi ni ko yóbbee l'hôpital mu jaare fa ñàkk bakkanam ma ne tey baax de nag moom wuub sàccay rek gaay yi génn ki seeni peel ak ki seeni kub-kub tàmbalee door te moo yëf yi mën naa bañ a demee nu ni mel moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca l'hôpital Fann jéggi na dayoo ab explosion moo fa am dal di jur tàkk-tàkk bañu évacuer fa fukki malade ak juróom mu ne xaw tuut musiba am fa fukki malade ak juróom yi ñu ngi leen hospitalisé woon te service bu chirurgie thoracique et cardiovasculaire ki def lu ni mel na mooy vigile ba fa nekkoon bi takk tàkk bi dal di déclenché ci la dal di wane njàmbaar song ko dal di fay takk tàkk bi ba noppi dal di woowaa service de maintenance bu hôpital ba noppi dal di woowaa service de maintenance bu l'hôpital bu Fann li sooke lakk gi nag nee ñu ab court circuit la te nag nee ñu c'est la première fois période Covid bi lu ni mel amoon na fa te loolu yëpp nag li ko waral mooy génération courant bee baaxul te fekk jóguñu si ba dakkal loolu mën nañoo xaar yeneen yu ni mel amaat fii ci ab l'hôpital Sénégal dañuy toog di seetaan mbir di ko ñab-ñabal ak a bàyyi jagal ba mu xëy dal di jur musiba ku ne di jaar fii di wax ak a métitlu te li xewoon ca l'hôpitalu Tiwaawan ba léegi mu ngi tegee moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax réew mi nag fi mu ne yëngu na li yëngal réew mi du lenn lu lu dul politique fi mu ne Sénégal yëpp ngi toog di xaar ban date la ñu war a organiser élection yi ma ne de fi mu toll ni looloy coow li ci réew mi waaw date wi date wi date wi kaña date wi kaña ay waaye dimbali leen ñu ñu organiser suñuy élection jàll ci leneen seeti leneen mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz